Abdoulaye Diakhaté may fàttali auditeurs yi ne ingénieur prévisionniste nga ci ANACIM yow yaa doon tey suñu gano matinal ah, tey mm-hmm. jii ñu uh, nam xam lan moo waral ngelaw gu bëri gi ñu nemmeeku jamono ji euh, comme ni ma ko waxee ci français bi donc boo xoolee euh, at euh, buñ doon xool weer yi ñu nekk par mm-hmm. exemple ñu jël janvier décembre janvier février mm-hmm. ngay gis ni chaque fois benn armatan bi moom lañ doon gën a am te ku ne armatan wax ngelaw mhm. ngelaw bu ànd ak pënd ànd ak poussière affaire yooyu noonu mhm. donc ngelaw boobu noonu heure bi moom mën nañ xaar genre affaire yooyu ay poussière ay brume affaire yoo xamante ni dafa xaw wow mhm. parce que ngelaw bi ci désert bi lay jógee ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw ñëw laal mais boo xoolee poussière bi nga xamante ni moom la ñu nemmeeku ci dëkk bi depuis démb ba tey. man mhm. nañ ne tey jii nii boo ko xoolee dafa nekk loo xam dafa lié ci suñu jargon li ñuy wax ay xeetu ngelaw. Mhm. yoo xamante ni day jugee sa île des Açores. Mhm. lay jóge di wëndeelu di wëndéelu pour ñëw ci suñu dëkk yi léegi nag moom bu ñëwee dafa am tamit beneen xeetu wëndeelu boo xamante ni moom moo nekk ci lii yi moom bu ñëwee day des fois day lëkkaloog boobu nekk sili bi mhm. daal di wëndeelu wëndeelu bu gën a yaatu donc mën na jógee ba ci kaw laal laal laal laal laal laal désert bi yëpp boo xoolee mhm. côté désert bi wëndeelu wëndeelu bu ngand léegi wëndeelu boobu nag muy wëndeelu dangay gis ni carrément moom bu ñëwee ba si désert bi day day day day day day yokk mhm. parce que amul dara désert la vent bi day am doole foofu. te bi bu amee doole si zone yi ma lay limal si mel ni euh, sud de Algérie. Mhm. si suufu Algérie waaye ci kaw Mali ak si suufu Mauritanie. Mhm. côté boobu noonu ngelaw bi bu fa amee doole rek dangay gis ni day yëkkati pënd bi. bu yëkkatee pënd bi nag léegi nag ñun li ñuy def mooy dañuy xool ngelaw boobu ba xam am na doole. Mhm. ñu ne waaw ngelaw bi am na doole comme am na doole tey day yëkkat yëkkati na pënd bi léegi nag dañuy xool ba xam pënd bi mu yëkkati est-ce que day dem Mali. Mhm. est-ce que day dem muritani wala est-ce que day ñëw si Sénégal léegi nag loolu am na ay xeetu ngelaw yoo xamante ni ñoom ñoo nekk. lu toll ci six cent mètres ñun yooyu la ñuy li ci ëpp xool léegi ngelaw boobu nan la mel ngelaw boobu bu amee doole moom moo koy buux moo koy buux waaye bu koy buux aussi bu fekkee ngelaw boobu dafa jëm si si ñun da koy buux mu ñëw si ñun fekkee dafa jëm si jëm si Mauritanie da koy mu jëm si Mauritanie fekkee dafa jëm si Mali da koy buux mu jëm si Mali waaye ñun démb bi ñu xoolee dañoo gis ni ngelaw boobu daf koy buux mu ñëw si ñun léegi looloo waral nag ñun ñu tëgg benn bulletin boo xamante ni dañ ko def ak suñuy naataangoo yi nekk qualité de l'air mhm. ñu gis ni ngelaw boobu noonu day indi poussière waaye poussière bu am doole. ñu xaatim bulletin bi daal ne bulletin bi kat envoyé nañ ko boo xoolee ñëpp ñi nga xam ne ñoom ñooy population bi envoyé nañ waaye envoyé nañ ko tamit service technique yi nga xamante ni ñoom loolu information boobu yitteel na leen pour ñu mën a am taxawaay bi war. Mhm. léegi nag ngelaw boobu ñu ñi ngi ko tënk woon ni euh, bu ko buuxee bu buuxee pënd bi pënd bi dina laal depuis démb ci ngoon dina laal euh, dëkk bu mel ni Matam. Mhm. Podor fa lay duggee. Mhm. comme si comme si suufu Mauritanie la yëngatoo donc day duggee Podor Matam. Mhm. donc bu duggee foofu nag après lay ñëw nànk nànk tas ci biir dëkk bi loola waral depuis démb ñoom boo xoolee ñoom côté boobu noonu amoon nañu poussière léegi nag day continuer di dem di dem di dem di dem ba commencé laa loola waral ñun depuis démb waxoon nañ ñu tey bu ñu yeewoo ci talaata ji. Mhm. dinañ yeewoo poussière bu am doole boo xamante ni dina gën a am doole tey ak suba. day am doole. Mhm. léegi nag après tamit buy dem tamit day dem ndànk-ndànk di dem ndànk-ndànk te jàpp nañ ne alxamis la war a commencer tamit di dem. di dem ndànk-ndànk ndànk-ndànk waaye tamit ni muy laalee. dëkk yu mel ni maatam Podor. Mm -hmm. ak Linguère ak yooyu nekkul noonu lay laalee dëkk yu mel ni Dakar Casamance yeneen ak yeneen donc ku nekk am na nu muy laalee si yow boo xoolee dëkk yu mel ni maatam Podor Linguère yooyu mën na fa wàññi gisin bi. Mhm. ba nga xamante ni doo gis lu mat juróom fukki waaye bu ñëwee côté bi di nga gis ni mën na ko wàññi ba nga xamante ni doo gis lu mat euh, euh, mille ni ñu koy waxee sax. mbaa <laughs> du junni mille mètres <laughs> euh, mètre donc loolu la ñu envoyé wu bu wax wax ko nit ñi comme ça ñu mën a jël seen i matuwaay par rapport ak poussière bii. kon instant bi Sénégal yëpp daal nii lañ nekkee ci poussière gi. waaw poussière bi moom mën nañu Sénégal yëpp la laal waaye nag ni muy laalee ki yenn yi bokkul parce que comme ni ma la ko waxee bu fekkee sud Mauritanie la jugee. Mhm. donc ñi si kaw ay comme la partie nord par exemple ay kii Podor même ba Dakar. Mhm. côté boobu lay gën a am doole que ñi si ñi si suuf. Mhm. mais quand dina leen laal tamit. d'accord d'accord waa tey ji lu jëm ci wàllum gu yaram ngelaw gi lan la mën a sooxee ci wérgu yaram gi. waaw boo xoolee ñun li si bëri li si gën a kii am am solo mooy que ni ñun ñun suñu liggéey dafa nekk ci xool xool xool pënd bi xool euh, jaww ji. Mm-hmm. lu ci mën a am loo xamante ni bokk si ñu wax ko nit ñi. Mm-hmm. comme ça ñu mën a jël seeni matuwaay. waaye yamuñu si nit ñi kese dañ koy wax service état yi nga xamante ni ñoom ñëpp information bi di yitteel na leen boo jëlee médecin yi ñoom yëg nañ ko. ñoom tamit dinañ jël seen i matuwaay. Mhm. tey jii nii boo demoon si ñoom dinañ la wax ni ah bu pënd bi jógee lii la mën a def si nit wala lii ak lii ak lii waaye tamit du tekki ni war naa si mën a wax li nga xamante ni képp ku gis pënd xam na ni carrément pënd lii lay war li mën na indi li mën na indi su mel ni par exemple boo nekkee si biti di liggéey si wala ngay kii te pënd bi nii mu mel mën nga ko nooyi te boo ko nooyee mën na indi ay jafe-jafe si sa si wér-gu-yaram mhm. waaye aussi ñi nga xamante ni dañuy def ay sport yi nga xamante ni dafa xaw a physique buñ koy def si biti tamit dañuy soxla ngelaw bu bari pour nooyi. Mhm. donc mën nañ nooyi poussière boobu te mën na leen indil ay jafe-jafe seen wàllu wér-gu-yaram. Mhm. waaye tamit li si mel ni xale yi tamit boo leen exposé si biti tamit mën nañu nooyi poussière bi te bi mën na leen indil problème donc a waral ñun ñuy conseillé ñu denc bu ñu ñu garder bu baax xale yi. Mhm. daal di leen di xool ba nga xamante ni poussière boobu tey jii nii mën na. bu bu ñu ñu bañ a nooyi poussière bi nga xamante ni day day day day day laal seen wér gu yaram bu baax baax. monsieur Diakhaté phénomène euh, phénomène météorologique yi ba la ñuy desandi ba tey atum ren mhm. gis nañ ne sedd bi dafa gàtt loolu euh, buñ ko euh, ménga méngalook li nga xam ne mooy at yi ñu wees ren mën nañ ne amul benn yoon seddaay lu ko waral. Mhm. waaw boo xoolee tamit loolu lu ko waral comme sànq ni ma la ko waxee xam nga tey jii nii loo wax ñu ne changement climatique dëgg la changement climatique waaye tey jii nii mën nañ wàcc ba si suuf expliquer nit ñi pour ñu mën a comprendre. Mm-hmm. xam nga dafa am li nga xamante ni moom mooy boo jëlee comme ni ma koy faral di waxee weer yu mel ni décembre janvier février mm-hmm. da ngay gis ni bu njëkk da daan sedd. Mm-hmm. da daan sedd saa yu ñëwee rek dañuy gis ni ñi jënd seen i jeget jënd seen i kii di waajal seddaay bi. Mm-hmm. mais at atum ren bi dafa xaw euh, dafa xaw a euh, particulier. parce que mm-hmm. nu mu mel moom da ngay gis ni moom at bii nii dangay gi dégg nit ñi ñun la sax amul seddaay. Mm-hmm. loolu li ko waral mooy boo jëlee heure bii nii normalement ngelaw bi nga xamante ni dafa tàng. li si bëri dafa daan nekk si suuf suuf su ma waxee suuf maanaam dafa daan nekk si dëkk yi mel ni ay Bénin ay Nigéria foofu la daan nekk. Mhm. mais ren lu ñu gis mooy que ni au lieu que ngelaw bu tàng bi nekk foofu noonu mais ngelaw bu tàng bi dafay nekk mais temps en temps li si bëri day yéeg ba ñëw laal suñu dëkk yi day wëndeelu ñëw di laal suñu dëkk yi. Mhm. te par euh, te normalement heure bi dafa waroon nekk si suuf carrément mais da ngay gis ni saa yu wëndeeloo rek day ñëw di laal suñu dëkk yi. waaye loolu aussi mën nañ ci yokk tamit ngelaw bi nga xamante ni day jóge carrément ci désert bi. Mhm. dafay ñëw di dugg ci dëkk bi bu baax a baax a baax a baax bu njëkk da daan dugg toog lu yàgg duggaat toogaat lu yàgg duggaat mais léegi dafa ñëw at bi moom dafay ñëw di ñëw di ñëw moom la am presque. yaa ngi dégg. Mhm. te Dakar ku ne xam na ni heure bi ngelaw bi mu daan am mooy ngelaw bi jóge ci géej gi. Mhm. mu jóge ca kaw si dëkk sedd ya di ñëw mais ngelaw bi nga xam ne moom moo jugee si désert bi moom la ñu gën a sentir ni moom moo moom moo moom moo nekk fii si côté Dakar léegi aussi loolu tamit dinaa si yokkaat dafa am ay xeetu ngelaw yoo xamante ni da daan jóge ca kaw mm. lu si mel ni dëkk Europe yi yooyu da daan wëndeelu wëndeelu wëndeelu ñëw ba laal suñu dëkk yi laal ay ay ay Podor Matam laal Dakar laal laal laal Linguère yooyu noonu surtout guddi gi la daan ëpp li muy ñëw mm-hmm. mais xeetu ngelaw yooyu noonu daan ñëw dañoo gis ni li muy ñëw ren li mu ñëw ñëw bëriwul léegi dafa bàyyi espace bi carrément ak ngelaw bi nga xamante ni moom mooy jugee ci côté côté désert bi ak ngelaw bi nga xamante ni moom mooy jugee ci suuf ci ci côté bi nga xamante ni moom mooy golfe gi te tàng. Hmm. moom mooy moom mooy moom mooy ëpp li muy ñëw. léegi loolu lu muy def ngelaw bi nga xamante ni moom mooy jugee ci bëtti sedd ya hmm. ngelaw boobu bu ñëwoon dañuy gis ni dinañ am seddaay bi ñu daan am affaire bi normal ba ngelaw bi dellu ci waat jëlaat position bee door a dem mais dañoo gis ni ñoom moom ak ngelaw bu tàng bi nekk fii ak ngelaw bi dañuy buuxante. Hmm. buuxante te ngelaw bi mooy ëpp lim koy gagné looloo tax benn yi presque ñëwatul léegi da ngay gis ni bii daf koy gagné carrément ñu ngi nag ñun ni mu daan seddee du ko sedd dañuy gis ne day tàng wala tamit des fois bi nekk juge juge ci kaw ñëw gañewaat tuuti ñëw Dakar ñëw Saint-Louis ñëw lu si mel ni podoor ñëwaat laalaat gañewaat côté boobu nga gis ni dañuy am ñetti fan ñeenti fan yoo xam ne day xaw a sedd hmm. mais jékki-jékki rek demaat ngelaw bi ñu ñëwaat jëlaat jëlaat espace bi gën a yàgg après bee buuxaat ko mu door a kii looloo waral ren seddul comme ni daan seddee comme ni daan seddee seddeew ko hmm. ngi dégg loolu moo koy moo koy waaye tekkiwul ni tekkiwul ni euh, nu mu tuddati euh, duñ ko kii donc day am une alternance day jékki-jékki ñëw jékki-jékki dem jékki-jékki ñëw jékki-jékki dem. kon daal mën na ñëw wax ne sedd bi jeexagul mën na ñëw mën na comme mën na bañ a ñëw. waaw léegi noonu lay demee léegi nag mën nañ ni tamit sedd bi jeexagul waaye yaakaar naa ni ni mu seddee woon mois de décembre gëw ma ñu amaat seddaay bu mel noonu. Hmm. donc mën nañ mën nañ ñëw sedd. après mu mu tàngaat tuuti jékki-jékki seddaat tàngaat tuuti xam nga tey jii nii bu fekkee yow tàngoor rek ngay am. Mhm. boo amee as tuuti ci seddaay sax da ngay jàpp ne ah lii kat dafa sedd parce que démb dafa tàngoon tey dafa xaw sedd mais boo ko comparé ana ba xawoon euh, daaw daaw jéeg da ngay gis ni carrément daaw ak daaw jéeg moo gënoon a sedd par rapport ak par rapport ak kii donc bu la fekkee si tàngoor bu metti metti bu xawee sedd tuuti rek da nga naan ah xaw na sedd nii nii mais. yaakaar naa ne ni ñu ko yëgee woon ci mois de décembre duñ ko yëgee waat nu nu mel noonu ci ci ci ci instant yi d'accord leer na nañ monsieur Abdoulaye Diakhaté may fàttali ne ingénieur nga prévisionniste tamit ca ANACIM yaa mm-hmm. doonoon suñu gan tey ji ci matinal Rewmi FM ñu lay jaajëfal bu baax a baax waaw maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax